kum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wali Balago sec, mi ngi ñëw di wax ak yeen ci nouvelle bi mu jët tay ci subatel bi ah bu ñu ne goutte d'eau bu déversé base bi euh, ma ngi ñaan autorité sénégalaise à ce que ñu dimbali ma parce que sonn naa c'est fatigant aussi vraiment ci par rapport ak sama famille par rapport ak sama njaboot métti na ah. et je pense que war nañ ci mën a def jéego damay wax en parabole c'est-à-dire ñu tënk depuis 2016 voilà fin 2015 la gëj a génn wax ci lu mel nii wala wax maa ngi def silence radio rek mais trop c'est trop aussi day mel ni yaa sa sax man lañ may reproché dafa am lenn lu may ragal non non non awma lu ma ciy ragal parce que man musuma beaucoup ci association ni lobby mel qui de près ou de loin lobby boobu ngeen di tudd muy borom lobby ñaari tur yi musuma beaucoup ak ñoom musuma beaucoup ci ñoom du ma tudd seen tour nag di def promotion bi sax comme ni ngeen koy defee na ñi ci Sénégalais yi du ko def musuma lekk seen xaalis bugguma seen xaalis te duma ko lekk ilaa yow mi yàlla teral na ma maa ngi sant yàlla beneen bi ci topp mooy metti na métti boo xamante ni léegi sax dañuy yebal ay nit ñu ñëw ba sama kër ñu dañuy dugg par force bu leen gardien yi téye ñu xeex ak ñoom dem wu ci certificat médical yóbbu ma ci yoon y'a même pas dix jours dem naa wuy ji bi ñu naan dama dem wuy ji affaire oto c'est faux dama dem wuy ji parce que dafa am ku ma porté dafa ñëw doon xeex ak sama gardien man fekkewu ma yëguma ma buy xeex ak gardien à un moment donné dafa mujj metti dafa mujj metti et c'est fatigant ngir yàlla war suuli maa ngi ñaanaa sa que ñu ñu ñu ñu xam ni doomu jullit laa dama am njaboot te à partir d'aujourd'hui permettre tuma konk ak ku mën a doon ak foo mën a nekk ngay wax ci man sama der bi ci teg lu ñaaw soo ko defee dina la yóbbu ci yoon te dee demain am na situation yi dem ñu war a wuy ji ci yoon parce que dootuma permettre kenn di jël dara di ko teg ci sama der bi et ñi nga xamante ni ñu ngi dem pour wuy ji ñi may képp ku ma yónnee citation ci sama pôle d'avocat yónnee la ko ak koo mën a doon naa ngi ñaan Sénégalais yi bu ma ci kenn ñaan njekk parce que bu ñu jël sama der bi di ma traité du quoi di dal sama kaw di ma wax du n'importe quoi ñoom ñëpp xam nañ ma kenn du ci wootee défendre donc bu ma ci kenn ñaan njëkk lu ma yoon may ma jël loo xamante ni man yëguma ko fekkewu ma de près ou de loin li xew tey man teguma seen euh, indiwuma logistique sama micro laa indi way lan moo ci sama yoon c'est méchant ce que vous êtes en train de faire c'est vraiment méchant et actuellement il faut que vous arrêtiez il faut ngeen arrêter li ngeen nekkee noonu bataille c'est bien beau mais na nekk musical acharnement bi bëri na ngir yàlla war suul man Wally Balago Seck su fekkee mës naa jël alalu ñu ngeen di tudd wala la bi farmason wala ku mu mën a doon maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla atteeg ñi ma koy waxal ci barki Seydina Muhammad baalu ma leen ko tey baalu ma leen ko ëllëg su fekkee nag mës naa ko def wala dama ko doon yàlla na ma yàlla weer ci nu mu gaawee nu mu gën a gaawee ci barke yonent bi wasalaam maa ngi jégalu ndax wax neexul surtout maag wax yu mel nii dafa sax nekkul sax suma suma suma suma suma nature mais en à un moment donné trop de silence des nuru leneen quoi je suis vraiment désolé maa ngi autorité sénégalaise ñu jàppale ñu parce que ñun artistes yi ay porteurs de voix lañu mais sonn nañu sonn nañu trop on est vraiment fatigué wasalaam